bisimilah daleen ak jàmm ci li gën a fës ci yéenekaay yi enquête lañ koy dooree maire bu Guédiawaye moom nee na du nangu benn yoon ci candidature am bi nag liggéey bu mu def defoon bu yàgg daal di nax saay tax Farba Ngom di ko tontu moom nee na président de la république mooy décidé waaye ca palais ba amul kenn koo xam ne dangay complot adoption code de la presse bi Macky Sall nag mi ngi mel ni mi ngi dalal xelu ñi nga xam ne ñooy journaliste yi bàyyi yëpp ndégandiku bi maire bu Dakar ak avocat wam déposé woon foofu ca chambre d'accusation tey ji nag dinañ ci àddu nekk bu ñu teg ci biti mooy xet bu njëkk bu tribune yéene kaay Alioune Sall ak Farba Ngom a ngi joxante ay kàddu las quotidien ginnaaw ba nag ñuy màggal ba sub liggéeykat yi Macky Sall doon dalal syndicaliste yi foofu nee na leen bu leen neexee ngeen dem grève waaye li ci topp mi ngi ci journal bi nga xam ne mooy las quotidien Vox Populi xëyee Alioune Sall maire bu Guédiawaye moom nee na nag Macky Sall moo ko waxoon rek mu dindi candidature waaye ca suba sa ba mu ko defee gis na ne am na ñoo xam ne nag dañu cee kontaan lool mu jàpp ne ay comploteur lañu ak ñu nettali tax Farba Ngom di ko tontu ca beneen wàll ba nee na ko pale amul kenn koo xam ne yaa ngi def yëfi kompaloo week-end bi ñu génn ñaari nit faatu nañu foofu ca Tambacounda kenn ki ca Bakel la keneen ki ca Tamba ñu ngi ko fekk nag ñu daal di koy takk l'observateur maire bu Guédiawaye théâtre lay def ndaxte moom candidature am bi nag andi na loolu coow Alioune Sall ngi wax waaye Farba Ngom moom di ko tontu rek ca beneen wàll ba wàllu tàggat yaram lañu koy jeexalee quart de finale aller 18h45 Real ak Atlético mu mel ni nag stade yi dafa jàpp ne match bi derby la mu nekkoon li gën a fës ci yéenekaay yi di leen jox dig daje suba incha allah.